mboolem lu waay mën a am lum rëy rëyit safuma ndegam amoo keefa tuuba am nga xeeb naa ko mboolem ku waay mën a gëm gëm bamba moo gën a wér man ku gëmul bamba mi gëm kenn yéem naa ko rawatina ak waaja koy dii ngat di wax ci mbiram lenn lu dul noona kookee man yërëm naa ko te it lu waay mën a xam ak fànn gum mën a doon ndegam xamoo bamba kay xam-xam ba sib naa ko say wax lu rëy rëy te doo wax ci mbiram rafetul amul xoram du njariñ wax mooy ko sib naa ko samay wax ak sama jëf ak saa mbir ak sama gëm ak saa yëngoog sama dal gi yépp jox naa ko nan tàmbalee ci mbiram yam képp yit ci mbiram tey ñaan ku nuy seet fu dul fii bum ni gis naa ko tàmbalee ci mbiram yam képp yit ci mbiram tey ñaan ku nuy seet fu dul fii bum ni gis naa ko